ñu ni mais yow noo fi fekkul yow nga dikk premier trimestre fonds politique nga dikk avril fekkoo fi premier trimestre mais budget bi vingt quatre pour cent la ko exécuté kon sa reste fonds politique mi ngi ci yow pendant neuf mois yi des ci année bi pourquoi mu ni fekku fi fonds politique xam nga yooyu dafa nekk lalu nii bu ko kilifa waxee ñu weddi ko ci saase parce que da koo wax ñoom Abdou Mbow weddi ko loolu du jëkk du yëfi chef d'état am na la nga xam ne wax dëgg yàlla nag hmm? man séntuma ci Bassirou Diomaye fay muy càggane genn càggan gi am na loolu nii dañ daan jàpp ni du waxe noonu du nitu caaxaankat. parce que lañu campagne lañu wax yëpp dafa bari ay la yéwén ci <laughs> vidéo les vidéos sont là est-ce que bu ñu demee aujourd'hui ba ñu naan les réalités du pouvoir euh, sont tout autres est-ce que loolu loolu li nga koy sàkk ci moom noonu est-ce que dina dina yomb. ci moom na yomb ci moom ci lu bari dina yomb ci moom lu bari parce que Bassirou Diomaye Faye aussi état moo demee comme li euh, Fatou Abdou wax léegi mm. Bassirou Diomaye Faye xëy na vaar ko ci bari du yomb bu ñuy vaar Ousmane Sonko la ñuy vaar ndax Ousmane Sonko mën na moo mu noppi te c'est une très mooy intérêt en tant que premier ministre parce foo waxee ñu tegal la vaar ni la yaa waxoon li tey wax nga contraire bi kon nga noppi tuuti moo gën jël recul kon loolu ñun ñëpp ay Sénégalais lañu ñoo fi dëkk di ko observer kon bu tey seetlu naa ni temps yi noppi na bari du jikkoom nag bariwul lu mu koy def parce que fu ñu masaana wax ku di benn mën la fukk laay léegi fi mu toll noppi nag kon yi taxit na mu noppi mais loolu kilifa day ne waxam day néew parce que bu dee yow foo ubbee sa làmmiñ indi coow foo ubbee sa làmmiñ indi coow ak presse bi foo ubbee sa làmmiñ indi ak euh, indi coow ak marchand ambulant indi coow ak député indi coow ak kii kii ak politique bi wax ji néew moo gën nga jëf parce que aussi tollootuñu comme nga loo boo waxee wax ba jot nguur da nga war a exécuter doxal mais waroo nëkk nag chaque jour nga def conférence de presse chaque jour nga def déclaration chaque jour nga def live chaque jour nga def lii nga def lële te nga am ay dossiers yu lay xaar. mais yaa ngi koy wax léegi c'est-à-dire que dafa war a am recul euh, bu ñu waxee Madiambal taskatu xabaar nga mais euh, nit ñi di la bàyyi xel. Mm-hmm. ci li ngay bind les lundi nit ñi di la bàyyi xel. ci fan yi li nga xam ne yaa ngi koy def est-ce qu'il vous arrive également am distance par rapport ak ci yi ngay wax mhm. concernant peut-être perception bi nga am ci Ousmane Sonko mhm. souvent souvent di ko wax est-ce que yaa ngi ci am un peu de distance aujourd'hui en tant que journaliste mhm. buy def ay analyse parce que sous Abdoulaye sous Macky Sall doon nañu la suivre man rapport ma am. li nga doon bind ci Amadou di ko bind ci ci ci ci Macky Sall différent aujourd'hui de li ngay bind ci Diomaye et lay wax man nag xam nga man la mooy sama rapport. Mm. ak information. mooy li ma wax mu nekk dëgg. bu dee li ma wax doon yi du dëgg rek je suis tranquille su Ablaye Wade dama doon bind su Macky Sall dama doon bind su Ousmane Sonko ak Diomaye Faye damay bind. di jàdd sama kàddu di wax bu dee nag man yàlla suturaal na ma wala baaxee na ma ba nga xamee ne su ma yëkkatee sama kàddu lu kàddu ga rëy rëy rëy kenn du ni du am amut wala du dëgg man je suis tranquille de ce point de vue là maintenant boo waxee waxu Macky fu ma mas a gis su Macky Sall def su dul noona dama koy wax am nga wax ko fi waxu suuf léegi ma ne ils ont fait pire que nos Wade avec nos wax ko fi joteeg ñu bari ci ñoom ak ak leneen ak leneen ak leneen yaa ngi dégg kon noonu dès l'instant que man hmm, aw ma sens interdit lu ma neex wax ko ci teggin ak sago ak teg ko fu wér mais mais sa perception ci Ousmane Sonko. non perception c'est pas un secret de polichinelle aujourd'hui xam nga non journaliste xabaar bi est-ce que du solul mbubu opposant aujourd'hui dafa principe de base en journalisme mhm. moo di les faits sont sacrés le commentaire est libre kooku kenn mënu ko dindi bu ma joxee fait ne lii moo am kenn du ko contesté nu ma neex commenté ko ne loolu liberté journaliste la kooku kenn mënu ko dindi kenn opinion ku nekk yaay am sa opinion bopp ak noo koy ak la nga xalaat man ngay moom mën nañoo bañ a bokk opinion nga xalaate nii ma xalaate nii mais bu ñu dikkee dellu ci fondamentaux métier bi mooy feey ndax wér na bu fee yi wéree rek xam nga man lan mooy sama principe sama rédaction ñu ngi may dégg sama ay ndawle lañu ku ci man di wunti loola leex nga bind mais fait bi may indi la nekk un fait véridique prouvé. nga wax ci mbiru euh, activiste républicain bi di Bah Diakhaté mm-hmm. le fait que depuis un bon bout temps ay nit di ko defal ay plainte te mu nekk ci lien wu détention la situation de Bah est-ce que mën nga ci revenir c'est une situation dramatique parce que Bah Diakhaté bi ñu ko fi téye mm-hmm. lu ñu ko téye outrage au premier ministre loolu la ñu ko fi jàppe woon mm-hmm. diffusion de fausses nouvelles. non non diffusion de fausses nouvelles lañu dana di jaay nañu terrain këyit baa ngi nii kon kooku ñëpp gis nañu diw jaay na terrain diw la ko jaay këyit baa ngi nii kenn weddiwu ko. bañ koy arrêté dañuy outrage au premier ministre ñu dem tribunal avant ñu koy atte ñëpp ni leen outrage au premier ministre amul ci code pénal sénégalais. terewul téye nañ ko pendant trois mois condamné nañ ko. def na appel xëy na daañ gisat dossier boobu luñ cay wax. mais li nga xam ne laa jàpp sa seetlu ko mooy bi ñu dafa am ñoo lu mat am na ay xew-xew yu fi amoon lu baajaxate waxoon ay weer yi weer mosuñu koo porter plainte toog ba tey baajaxate nekk ci biir kaso bi ñuy déposer ay plainte yu bees dem ba fekk peenu baajaxate bi ñu bëgg a jeex ñu dàbbale ay plainte yu bees naan dañ koy enquête dama jàpp ni kon loolu ay pexe la pour téye baajaxate biir kaso bi ma jàpp ni nag loolu li tubaab di wax lâcheté mooy ngay jaf jàmmaandoog nit ki mu tëdd ci suuf nga fekk ko fa fecc suuf di ko ne di acharné wu ci moom man pour man rafetul. Bah Diakhaté ñi koy porter plainte tey bu ñu ko defoon il a deux mois il trois mois il y a six mois duma leen ko bañal ndax seen droit la mais néew ma nag waruñu ko def de ku tant que délai infraction prescription àggugu fa. heure bu la neex nga porte plainte. mais est-ce que du boobu dañu amul confiance peut-être ci li doon dox jàpp ne Bah Diakhaté dafa far ci pouvoir la far li mu doon yëkkati il n'a jamais été inquiété que bu ñu ko yóbboo également duñu am gain de cause. bëgg wax ni kon ñu daan non dama ne est-ce que je demande. non non non mais enfin parce que cette question là hmm. nekk ay sénégalais yu fi doon nekk. Hmm. di porte plainte yeneen sénégalais. am déet. ba fi jamonoy Macky kon ñooñu kenn nelawul leen noonu doo porte pourquoi yow yow da ngay jël sa responsabilité am nit tooñ na la demal ci yoon bu yoon defee liggéeyam xayrul bu deful liggéeyam nga xam ne yow def nga la la war mais yow nga ni miix nit tooñ la nga mën koo muñ pendant juróomi weer juróom-benni weer toog ba nit ki nekk ci kaso bi nga soog a génn naan damay porter plainte man day wax dëgg yàlla jàpp naa ne ah ku am fulla ak fayda te respecté sa bopp nagaloo sa bopp doo defee noonu. par rapport à la justice euh, coow bi di euh, conseil supérieur magistrature bi ñu defee remise rapport bi président ne UMS ñoom ñoo sàkku mu des ci conseil supérieur parce que bugguñu mu génn ci euh, perception wu sénégalais yu bëri dafa doonoon exécutif ak président ni muy toogee ci conseil supérieur bokk na ci li tënk justice tey jii bu changement amee te mënuñoo fexe ba dindi ci loolu est-ce que ça veut dire que kon magistrats yi ci boppam ñoo jëlul seen indépendance ñoo jëlul aussi seen i responsabilités dans l'exercice. non man li ma dëkk ci magistrats yi parce que magistrats yi ñoom ñoo xam ba xam indépendant nañu am indépendant am nañu outil yu indépendant am ndéet. Mm-hmm. ñoom ñoo ni présidence de la république président de la république mu nekk ci conseil bi moo leen gënal ñoo am seeni raison man xawma seeni raison man naa ko bañ a partagé. Mm-hmm. faut pas aussi que ñun ñuy décider ñeneen ñi. ñoom ñi nga xam ne bu ñu dee wax justice bu indépendante du juste pour indépendante pour sénégalais yi pour magistrat yi ñu moom seen bopp la ñoom ñoo koy yëg ba xam ba xam magistrat yëpp bu ñu toogee nag ñoom